مزيدا لا أحصين الثناء عليك أنت كما أثنيت على النفس ربي الله موزعني شكر ما أوليتني نعما وقد كسرت موزعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله وأزكى صلوات ربي وأصفى سلامه على خير خلقه حبيب ربي سيد رسله إمام أنبيائه صفوته من خلقه مظهر لطفه وعين رحمته سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الفاتح الخاتم الناصر الهادي صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ورضي الله تعالى عن آل بيته وعن صحابته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن الدعاة والمعلمين والمربين والأولياء والأولياء والصالحين ورضي الله عن رئيسهم ممدهم تاجهم فخرهم مولاي السر المختوم والقطب المكتوم أبي العباس سيدي أحمد التيجاني الذي ربى بلا خلوة أصحابه على المنحه استقاموا فيا لله من حاره رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه وعن خليفته الأكبر الأبر مولاي أبي المنصور شيخي سندي ملجئي غوثي مولاي ابي المنصور شيخي وسيدي مولاي الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن جميع أبنائه وتلامذته وأحبابه رضي الله عنه أجمعين رضي الله عن كافة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدي بي لممثل موي أقد كنو وأعطي أقد كنو نوحني àq yii ñuy bëgg a waxtaane bis buñ ko sàmmee jàmm tasaaroo ci adduna bi yëpp lu tax ñu ne riaayatul xuquuq taasisun lil amni wa silm waxtu àq yi sàmmoo rek jàmm am moo tax waxtaan wi dañ ko tënk ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy al amaana amaana nag mën nañ ko firi lu nekk ci baax waaye jàpp naa ne bu ci gën a jekk ci firi ko mooy ngor al amaana ngor nga xam ne ay jukko la ñaareel bi mooy diggante amaana ak dëkkandoo lu leen boole ñetteel bi mooy ay teggin yoo xam ni war naa am diggante jaam bi ak borom subhaanahu wa taala ba rogaat ci diggante moom ak doomu aadama yëpp ci biir loolu ci la ñuy waxtaan ci dëkkandoo ñaata dëkkandoo moo am ah ah dëkkandoo yi ñaata lañu tafsir ana kañ waxoon jàpp naa ni mën nañ ci am juróom-ñeenti dëkkandoo yoo xam ne benn bokk ca moom nit lañ ci gën a miin moo ci mujj ak jiwaat rabbayni muy dëkk ak yàlla te nag muy bi bi nga xam gën a wér. نعم تبغي نار البي موي الجوار الملكي سنيو دك اك نعم نياتيل بي موي الجوار النبوي سنيو دك سنيو دك دو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نياتيل الجوار القراني sunu dëkkandoog alquran juróomeel bi mooy al jiwaar al ilmi xam-xam bi ñu am dëkkandoor ak ñun bu dëkkandoor bu doy waar ñëw mooy al jiwaar al cheytaan ki kenn du sóoraale kan te mi ngi fi des dem mooy juróom-benneel bi juróom-ñaareel bi mooy al jiwaar al zaati yow ak sa bakkan ay dëkkandoo ngeen daa ngeen tàqandi ko dajewaat ak jiwaar al masjid yi jàkk ji nekk sa wetu kër sa dëkkandoo daa ngeen am lu ngeen seq yooyu yëpp dafay lijjanti ko bi nga xam ne moo ci mujj soo koy ñëw ki mooy juróom-ñeenteel bi al jiwaar al bachari dëkk gi ñu dëkkante nun ñi yii ñu wax muy juróom ñetti dëkkandoo yi bu lijjantikoolee suñu diggante ba lijjanti mukk yàlla subhanahu wa taala ci wàllu ngor dafa wax ni ba may bindee ngor defar ko ba mu jekk dama ko gaaral malaaka yi mënuñu ñemewuñu

إنه كان ظلما جهولا أمانة وقت وين كنت تجد دفع نيال مبير بعم وهي الأمن والأمان إربون قرع مالك خير من دولك وتقني الأمانة هي عدم الإحساس بالخوف من الظلم أو الاعتداء فني وحي أمانة maanaam ngor buñ ko tuddee rek bañ ko bu wér ni kenn du salfaane seen àq kenn du jël seen alal kenn du leen log loggati kenn du leen toroxal moo tax ñu ne amaana ci boppam ki ko am boo ko jox daf koy sàmm daf koy aar dañuy fegu ci lépp loo xamante ni ñuy jëfandikoo li nga xam ne moom la amaana di ci wàllu jëfandikoo am na loo xam ne maxsuus lay doon xëy da nga koy laal ci sa loxo loolu tax na sax ndénkaane arab yi tudde ko amal fekk na du jëm li nga dénk waaye jukko ji nekk ci ki nga dénk moo tax ñu tudde ko amal am loo xam ne la maxsuus la mel ne ragal yàlla amaana la bu dox suñu diggante waaye nag léeg-léeg du ñu yëpp ñu ngi waaye nag amaana moo tax léeg-léeg nga dénkaane am mbir mi noonu def nga ko fii ay din amina wa fiya wax yoo xam ne boo ci tegee lan nga teg loolu laaj ci ngor yëpp dina ko ca def te dina sànq dara loolu moo tax Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam keroog Fatxu Makka caabi kaaba ga bu mu mettee ba ñu ko laajee moom Ousmane mu gàmtu waaye ba mu àggalee dafa jël caabi ja delloo Seydina Ousmane ne haaki yaa Ousmane al miftaaxaha al yawma yawma birrin wa wafa tey kóllëre la ñuy mottali وقال الله سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعيدكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا الله نينا سيدنا محمد لو كي كابو كي موم waaye képp ku ñu dénk ci lu ñu la mën a dénk alquran nee na defal bi Seydina Muhammad defoon téye ko téye bu jekk delloo ko ñu la dénkoon nañu ko ñàkkoon salfaañe boo koy joxe mu salfaañe mu yàlla kat moom mi wax loolu inna allaha kaana samian basira mi la dénk bëtam ak noppam ñu ngi la ko may doo def ci sën moo tax mbooleem anh yi xam naa day gàtt koo ci natt ci ñoom da nga fekk mu jël baatu amaana def ko ub dundam Seydina Muhammad lu doon aw turam Muhammad lu ci topp al amin lu ko jox mooy jëfandiku ko rafet al amin mooy ku gore koo xam ne du yàq koo xam ne du wor koo xam ne du wuruj koo xam ne du dootal kenn koo xam ne du doogatu kenn واحد بجد يتعقل هذا هو المحمد هو المحمد الامين وهي وسيت غرانتي نيوم ياب دينا نات دينا فكان كو نيك ني فرام سيدنا يوسف يا عزيز مصر وفنك ليعلم اني لم اخنه بالغيب دخيرت الوقت تيرنتي نسلي لما وقتك bu tekkee ni inna allaha laa yahdi laa yahdi kaydal xaa'iniin warkat moom ay mbiram du jub mukk torof torof lay jógee delluwaat ci beneen torof torof Aziz bés na tax wax ko ni ko innaka al yawma laday ladayna makiinun amin tey am nga dara ji du rëy ci noonu waaye am nga kóolu ci du rëy ndax sa borom ربي يستأجر إن خير من استأجر القوي الأمين القوي الأمين صحب نسي يرحمه موضوعنا تقوم سيدنا موسى بنا حمد إن يوني كفاية نفلكم كوم من الجل مدل اللي كي يلقي البصر كاتن كتوري وأما كاتن بقري ولي تيري بقري أمو كاتن من waaye koom booy liggéey da ngay capacité ak boole loolu boo ko nattee ci mbooleem yonent yi loolu ci nga gisoon ni Seydina Jaafar bi nga xamante ni yàlla yóbbu na ko mu dem ca nga xam ne ñun ñëpp africains yi war nañu xam ni l'islam fii la jëkkee l'islam bi mu duggee Afrique te bokkul feneen الهجرة الأولى لحرش أفكين أفكين يدقهم ولو لسا رجع لغنا بوكنا جلن بوخنا جلن تبيغا خمني نيونا كي أي سكاكنت كي أي نياكنغا كي لك لولون نقطة بابا أدما كي لا يخمون نيبكر من لكم نكتبون لنا تبوخمني نعرفكم nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu xam nañu aw askanam ndax moo ko moom xam nañu ak dëggoom ndax jëflante nañu waaye ñëpp ci waa mag nangu nañu ko pare la ndax ñoo ko tuddee ak amin mu ñëw mu digal ñu nag ngir nañu topp ci ak amaana léegi nag xalaatul amaana lii nga xam ni moom la lislaam santaane mooy fexe ba koo nekkal bu mu mën a doon bu ngeen séqee du tiit ragal وتنطلق الأمانة على الوديعة وتطلق الأمانة على الوديعة لكونها في أيد آمنة وفية kon nag amaana ci boppam mooy àq joo xam ni wala jukko joo xam ni luñ la dénk nga gàllankoor sàmm ko. def ko ñi la dénk nañ ko bëggee war nga def ko moom xam ngeen ni Mawlana Cheikh Seydi Aboubacar ibnu Mawlaya Cheikh El Hadj Mahamadou Mansour allahu yamuddu fi umri wa yubarika fi sihhati wa yaudu wa yauduhu ila nashati nashitan muaafan sahihan mustabshiran yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def dafa waxoon ni ku la dénkee junni boo xam ne ay sandal la nga xëy xëy mu laaj la nga ñëw delloo ko junni kayit lu mun a dénkoon ko leneen nga ko jox waaye joxuloo ko lu nekk loolu ko waaw la dénk téye ko ak ngor ku ñu ne la andil joxe ak ngor amaana nag dafay laal fu nekk laal la nit ñi kenn par kenn laal la itamit mbooloo bu kenn par kenn jubee famille bi mooy mujj a mi mooy mujj a jub dëkk bi di beneen dëkk romb ko mel noonu jub ñu ni Sénégal kat dëkk amal na kon mboolem jëflante yi taamul al axlaaqiya taamul yëpp da ngay bu ba ci jàmm yàlla da ci bugg amaana ndax ko def ko ngir sa borom subhanahu wa taala amaana yàlla soxla na ko ci bët yi ak tànk yi ndax dafa la xool loolu xaraam wala déet bët kenn waru ko jëfandikoo ci lu xaraam yàlla tere na la ko te waru ko dégg tànk warloo ci dox benn jéego jëm ci lu xaraam yàlla ñoo ko dénk moo ko tere wala Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu xam ngeen ni ci mujj dundam bu tedd bu sell la bu bëri ngay fiyu baax anwaar nafaxaat yëpp feeñ na ci kifaayatu raadu bii ak asxaabu munkiri jaani su fekkee boobu yorewul suñu bët yi tubaab bi nee ñu depuis sur l'islam au Sénégal boo demee di nga fekk ni tubaab bi dañ ko wutal ay rendez-vous ni ko dañ la koy waaye wax na njaboot gi ne leen bët yi sama borom daf ma ko joxoon am lu ma lu ma ci sant. dafa am lu ma ci sant lan moo ci doon sant la leneen mënoon na ci rax bët bi xool mu warul xool gannaaw yàlla dimbali na ma nag ba bët bi dootul xool lenn lu ko yàlla tere ci la taxoon mu di ko jox bët maa nga ca fu ko doon jàngal jàngal wàqafam soxna Asiya bu Malik radiyallahu taala anha ak ñeneen min banaatiha ne balaatin mu bët bi am naa bët bu ma jàngal alxuraan moo tax bët kenn am naa ko ma woomat Cheikh Mouhamadou Bachir ñaan ñaata na ko woomat yóbbu jàppal te daaw ko tardé bët yi yàlla na ko la bul bul ci dox ko xaram boo leen cër la amee yëpp xol bi ci la bokk waaye dañ ci ñëw ndax ci la xaaj bàyyi foofu la ci wax luy lamiñ wi yàlla dafa ko dénk amaana la ci yow nga tudd lu ci ñaaw nga tudd ci lu ñaaw ku ci tudd mukk lu ñaaw ku ci tasu bokk ku ci xas as gor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni al muslim man saliman muslimuuna min lisaanihi wa yadihi li fekk mas na nokkatu nit ci sa doole wala nga xasus gor ci sa làmmiñ mënuloo wàcc ab bunt li feeg sa daraja feeñ nga ci mbooloo lor ci aw nit ci sa melokaan woo wële ciital ci aw nit jaxase boo leen nit ñi di tawoon wala ñu lay jaxasee wala ñu lay waxal ay lu bare yow yooyu yëpp mi ngi ci man salibal muslimuuna mi sali léeg-léeg sa nit ki jël ci tool ji loolu du wax dañ ko soxla ci ndénkaane luñ la dénk ak lu mën a xew na la jaral sa bakkan bu mu yàqu baaboo bu yàqu bu mu yàqu ci sa loxo bu sa bakkan fekk sécurité yi nga xam ne di ko di nga ko dénk ni la lii kat maa ngi lay wàtt ni sama borom yow rek laa ko wax même bu ca àppalee ki la wax sekkee yaa ngi moom rek jarul mu yàgg foofu yéen nag ñàkk wóoru ki ngay waxal waaye askoox bu ñu ko waxee sekkee da fas ci xolam denc ko séq ko ki ko seqal diggante yi boo xam sëy la boo xam lu mu mën نقرح موقيتين العلاقة الزوجية نقرح موقيتين الأسر فمي نقرح موقيتين ييب أي واجبات ومسؤوليات دينية روحية اجتماعية جنة النبي صلى الله عليه وسلم andil nañu lu bare ci digle bu mu digle ak amaan alquran la ci dig inna allaha yaamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha képp koo xam ne dénk nañu la lañ la dénk war nga ko sàmm ba jox ko ñi la ko dénkoon ak na ma mën a mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida addil amaanata addil amaanata fexeel ba ki la jox ngor ki la dénk ngir sa ngor fexeel ba ndénkaane la bu kenn mukk ak dénk amaana dañu la dencanoo dañu la waxloo même ci kaddu bi ñu la waxloo yemal ca fu kala waxloo fa mu yem waaye yokkal ko wàññi ko bokkul ci amaana mu ni addil amaanata ila man itamalak wala taxul nag man xanaa ku lool lu war woon métti métti bàyyi ko moom kon moom mooy bu koy Cheikh Al Hadj Malick sax ci jëflante fexeel yow bay def lu rafet rek subhanahu wa taala dafa tagg ñi nga xam ni ñooy taxaw ngor لقد منح الحق سبحانه وتعالى رعاة الأمانة والقائمين بالوفاء في العهد وعدهم من جملة الفائزين ووعدهم بنيل رضوانه هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يلا بينا تبقى لما لنخمي loo leen dénk ak la mu mën a rëy rëy rëy rëy daa ñu fexe ba sàmm ko tekki seen bakkan kóllëre bu ñu seqal ku mu mën a doon daañu ko sàmm fa fi ifaay ifaaw wa naqdul adi min fi'li fi suuf walaay Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa wax ni ba nga fexe yow daal ak lu mën a xew kóllëre mu dem mukk ci yow ndax dama kóllëre moom ab kàccoor doomu kanam يروح الذين هم لاماناتهم قادين راعون ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المقسطين كفر بو يلا امكيو داك سك دوب داك سك بار باي لا خيل ورد سبحانه وتعالى والأبناء سمحت maa ngi dem ci dëkkandoo yi. waaw أوصيك وصية العبد في كل ما فيك لا تنام قلبه نعم والقلب نقول له لو بقوا جواي يلا yàlla suñu première dëkkandoo mooy yàlla ah mooy suñu dëkkandoo suñu première dëkkandoo mooy yàlla maam wa astaghfirullah wa atubu ilay yalla, subhanahu huwa maakum aynama kuntum yàlla nee na fu ngeen mën a nekk rek maa ngi yéen fu ngeen mën a nekk maa maa ngi yéen seen dara fu wallahu bima taamaluuna basir lu ngeen di def fa ngeen nekk maa ngi teg sama bët ولقد خلقنا الانسان يوم نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. من يرمي ما يمكن ان يجلس البحر. اي بكم كما لا يشاء الحجم ما في كركه الشيخ الحاج مالك قصيده من طف افحموا ممكن الجنة كفتو وحمي جاي نعم ñaale mbir nañ ci bàyyi xel mooy jamono ak sa xol bi jamono ak sa xol bi ku wax ni wa dahru wa dahru darfun te faham ma qasartu bihi والقلب بيت فطهر بيته وصلي شيخ الحاج مالك نانا نوض استجاهم ترتري نخ نخ يتقوم على شعور يلا جل نق نتيجيك اربين قيدك دونا نتكين ورقوس أبوي ليتني يلا يوم لجنبو آه. شيخ الحاج مالك نانا jaamu yàlla ba ca gën a rëy mooy rafet njort ci sa borom jaamu yàlla ba ca gën a rëy mooy rafet njort ci sa ndaw jaamu mooy yàlla ba ci yées mooy ñaaw njort ci yàlla jaamu mooy yàlla ba ci yées mooy ñaaw njort ci sa ndaw mu ne nag dahru darfa jamono ji kat yàlla di moo ko def ndax rek di sotti rek yàlla bu sottee dala neex ورضني بالقضاء ربي مصبرني على ما अपने एक अपने एक يقول مولاي الشيخ الحاج مالك جدو خل نبلا نبني وين نبي يلا كون خمن نكون جلسة تاكل ما نبي والله معكم جوجله اي لو كفرنا اليوم الشيخ الحاج مالك مين كان هناك جنون خل بويا يلا تلدك وتخوني فطهر بيتهم fexeel ba néeg bi bu mu salte waaye fexeel ba néeg bi nga defar ko si yàlla bu mu tëb bu mu xar bu mu xëy du yàlla bu mu xar wax ju rëy la de ku yëg ne sa xol bi néegu yàlla dootoo ci denc bañeelu kenn dootoo xañ kenn ndax yëg nga ni ki fi nekk yaa yoo xoon seex nii ورحمة الله كل الخلق قد وسعت بفاجر ومطيع رحمة الله كل الخلق قد وسعت ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كيف يخلون عنده كاتباه وشاهداه وربه ذو المحال كيجي بنا كي سنه كيجي سنه كيجي بنا لا تنسوا سبحان الله سبحانه وتعالى كراما الكاتبين يعلمون ما تفعلون بني فخي يامو ليغا خاني موم لا نيو بيندو رابور يالا نكون نك ان الابرار لفي نعيم ان ان ان الابرار في نعيم وان الفجار لفي نعيم رسول الله صلى رابور بي راتي بي kooku buñ ko buñ bàyyi xel balaa kii damay rëppatal dem ci ñetteelu dëkkandoo mooy al jiwaar an nabawi dëkk bi ñu dëkkal teg si kër gi. loolu de sama maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci xutbaam bu tedd bii daf ca ñaan. nyanyu kare kare kawe yu ànd ak soññ dafa ci xobal bi ñuy déglu àjjuma du nekk fan ni maa ngi ñaanal maa ngi ñaan ñaar ñaari ko muy baax ak yu ñu ko ngay ñaanal ونرعايا المسلمين نحن أي دولة حين طيب، فإن أنا في الصنع إن توفيق إن صلاح هم نعم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم نيغا خامل نيو جيتي ام ريو باغي ناري يالا نيو توفيق يالا نيو جوب يالا نيو صلاح صلاح بو نيو lu bari nga boole capacité lépp nga boole am am am réew bu ko jiitu bu ko jiite loolu ngay wax nga am tawfiq da nga war a am as-salaah. bu fekkee ñëpp boobu bu laa taxul gouverneur yi préfet yi bu xokkaamahum bu teg li nga xam ne mooy juge yi bu qubaatahum bu teg ci procureur yi bu teg ci bu ulamaahum borom kham kham yi kham kham kham ba pare dëng bu hudaa taw li nga xam ni daañu toog di orienté nit boole ko nëgg gu wér Cheikh Mouhamed Bal dana maa ngi ñaan daal ñu ñëpp yàlla na yàlla jubal ci yàlla baaxal yàlla may na ko yow charte bu mooy la muslimin ci sànni nit gàtt te xamuñu mooy kan Thank you. ah ñu ba si ñu guddi ba ci bopp. ñu leen. li nga sànni. Ah. ci wax nga ko xamee wala ci jëf. wax wax rek wax rek wax wax rek. Cheikh Mouhamed Malick doon ñett juróomi ñaar loolu bu mu doon ñaar juróom-ñaari xeet lañu seetal fi mu toll ak jamono. Abdallah Aziz Cheikh El Hadj Malick nee na ñii bu leen yàlla defaree ba ñu def am tawfiq mu ne wa kathir ansaarahum yàlla nga yàlla nga leen may ñoo xam ne daañu leen jàppale. am njiit bu mu mën a doon bu daayira beeg bu kër geeg bu penc beeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla dee defal tawfiq da defal ñaar. mooy ku baax te am xel nek ci wetam dina ko fatal du ko jàppale bu ko naree nak da kay bolé borom xel mu rëy mu kay fatal ay responsabilité ko pare di ko wone waye nak mënoo ko waroon dafay mënoo ndax nag moo tàngal إذا أنت بأمر فاستشر وتنام يخشى الإله لعل الله يهديك أبد الأسيس ñaareel ñaan bi mooy warxam waxmi xawzatahum walaay Cheikh Hadj Malick nee na ñun ñii fi toog kenn ku ci nekk la la yàlla jox ci wërsëg yàlla maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla aaral. sàcc bu fa tàbbi yàqkat bu fa tàbbi. waaye du ñu wax amin. sax damaa xule. amin li mën na aar kër ba yombal xeer. wax mi xawzatahu almadiya والمعنوية الإنسية الأبناء والذرية إلى يوم الدين وأعلم أنا راهم نيما ينال بروكيرارية سوجية بريزداية دريتر يم شيخ الحاج بارد أنا ما ينام لم يتبخي أنا كبيرك جوكو أكثر أنا أما كم تتكلم تنجل من أبرازيز ويقول لي ويؤمن سبلهم شيخ الحاج مالك يقول لي يلا يلا نكون سيكريزي امين امين فاصل دي جدال yaa rabbi usmaana di yónni yonent yi di wàcc ay téere mooy bakkan bu ko kenn rey diine bu ko kenn jalgati xelum doomu aadama bu ko dara yàq trop bi bari si bari liggéey yi bari na doomu aadama kenn yàq al alal gi xam ni moom la ja ay ay ay gor dajale kenn salfaañ benn biir laa ci boole mooy nas fexe ba doomu aadama yi di jur bu leen kenn gàllan ko sàmm ñàkk sàmm gi ñu sàkk ñàmm sàmm kóllëre li mu andi mooy bonheur bi nga xam ne doon na ci biir kër yi amatu kër yi dafa daan neex dafa daan bare jàmm léegi sawara la jëkkër xamatul fu muy teg tànkam soxna si xamatul fu muy teg tànkam في القرآن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لطخ لتسكنوا إليها وجعل بينكم ستنيال مودة واحدة كيف تقول دينك في تدوني لكن نسيب Thank you.

góor waaw góor góor day téye bu mu dëgër day téye bu mu dëgër Abdul Aziz waaw foo mënul muñ ay benn jenkee mënuloo ko yëlif mu ne ko mu ne ko te muñ te mënoo muñ saxaar dara sotti loo taal doom lay doon mu muñataa cuur ki da nga taa jur bi waaw ku bëgg sax ku bëgg këriñ te mënoo muñ saxaar loo taal doom lay doon ku tedd ku sell ku yiw ku baax ku xajoo lépp xajoo ñëpp كيف بالأمن مولاي تبين مولاي يحيي الكريم يرضى ودينا وكيف بالأمر الذي تبين يحيي الكريم يرضى ودينا جميل شيخ الحاج مالك السي بكل الزوايا من زوايا تصرفاته العلمية والاجتماعية والأخلاقية تؤدي إلى رضوان الله تعالى بين إصابة الدنيا شيخ الحاج مالك نين تنكو يلا بولي رون أنا أدنكو بولي سخلا واحد يلا دينكنا هناك يوم كن مسؤول ديك السفر ومخي مكت خمد رضي الله تعالى عنه ها أكن يكون جس بحوم نياري باران يير دواليكي فرقم ولا بوكي تبو جرام باكسكي بقن يقتل قول الحمد لله رب العالمين لقنا بورا فتحة لقنا لقنا muñ rek ba ci këram tey ñaata nit ñoo am daraja di takk di sànni di takk di sànni di takk di sànni saa borom dimbali ko ba ñeent yi ko yàlla joxoon mu nekk ak ñoom ba màggat ñoo xaw ma dawlu xaar leen ci aljanna يلا يلا يرمكم اللهم افض بحور فضلك ومنك وكرمك اصالك اللهم من شيخنا وسيدنا وسيلتنا الى ربنا مولاي الشيخ الحاج مالك سيد اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما وتفخيما ومهابة وفيضا وقبولا ورفعة وارتفاعا وعلوا واعتلاعا وفخرا وافتخارا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله. مولاي مولاي moo président daayira bi baarakallahu loolu la leneen sëriñ bi ñëw na toog déedéet nañ ci seet suñu bopp ba pare bala ñu ci xool keneen di ko ci sikki ñun nañu seet suñu bopp commencé seet suñu bopp baax baax ndax ndax suñu bopp lépp loo xam ne ni ñu nga ca sa neexul yàlla rek ñu daw génn ci ndax xam ne ni xamoo fu muy yem te yam koy gën a jege mooy dem yàlla yéex waaye boo demee ba say bët gisatu say bañ di foq te saxaatu sa kàttan nekkatul boo yëkkatee sa bopp dem kooku yaa ngi ci yoon yàlla yéex rek. nga defee nag waxtaan yi waxtaan yëpp daf ñuy tegaat ci yoon rek ñun ñëpp kenn ku ci nekk ba dafay xool si ku kenn xoolal sa bopp. fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha wa idha intahat minhu fa anta hakim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna انفسكم افلا هناك تعقل والتفسر والتفكر والتدبر والتعقل يجب خول ليغي دا فين نك ني نيب سي دم ريك بالا ناي خول سي كين خول سا بوك فبار واو سي سا بوك فغاي تامبالي واي نيو ني ريك تاي كور وقتان وقتان غام ديال تاول نير نير نير ما سي ديال تاول ديك تيون ني فوتي دم كيس موبايل فلو خامني فتبارك الله تاي نيو fa tabarakallah ay nit lañu toog ñun waaye bàyyi nañ fi xam ne di tam kenn kon ñu mën a téye te kenn du leen sikk ah tarika bi du alal rek waaw lu ndoro bi rek ñooy séddale nañu ala mu am kër yi nañu ko waaye jikko yi moo tax mbokk yi waxuñu pour tiital kenn waaye kenn ku nekk defaral sa bopp xoolal sa bopp ci wax ji baram ci xool keneen yal nañu yàlla jàppale nag eh, te Sidi Ahmed ñaanal ko moom itam moom mi xam ne ci moom la yàlla jaarale lii yàlla wutuñu ci moom fayal ñu ko may ko fanu gudd te tabarakallahu may ko njaboot gi yëpp yal na yàlla def loolu ci barke rasulillah ñu yemale foofu wax di jox chérif mu ñaan ñu dem ba beneen yoon yal nañu jàppale ah hmm.